jàmm doon li am solo ngir réew yi naat moo tax bépp doomi réewum Sénégal war na ko ñaan saa su ak fu mu mënta ne. jigéen ñi dañoo taxaw tey ni dañuy woote dañuy woote ngir jàmm. dibeer gi askanu senegal dana dem ci bañ gàcce ya ngir tànn njiitu réew bu bees loolee tax ba jigéen yu bootu ci kuréel gi ñuy woowee ëttu jàmm di ñaax béppi doomi réew mi mu sàmmanteeg ak jàmm jooje. jóg rek def élection. sa candidat voté defe naa ne amul benn bu nga xamante ni si war nañoo ñëw naan ñu ngi ñaan daal tey def am am élection yu nga xam ni jaar yoon. ngir loolee mën a antu jigéen ñi lee jaar ci ay gox goxaan yu bare yu ne ci biir réew mi ngir ñaax askan ya fay yeewoo. dañoo wër. def sensibilisation bi et partout population yi dañoo kii gis nañu aussi rencontré bu baax a baax euh, ñi nga xamante ni seen ñoo am euh, influence et seen baat ñu téye ko bu baax. réewum Sénégal jaar ci fitna yu bare ci at yi ñu weesu loole tax ba ñu jàpp ni gannaaw bi la joŋante. faaw ñu juboo suñu biir. amul dara ku ciy gagné ku dul bi ci jëmmam moom rek de moo ciy gagné donc bu ñu ciy jógee incha allah c'est le doon na réew mi nga xam ne ni ñu bëre dañ koo nawoon ndax jàmm ji nga xam ne ni moom moo fi woon rawatina bu ñu nekkee ci ay jongante falum jiitu réew jigéen yi nekk biir ëtt jàmm. taxaw temb ngir ñu woy di sàmmanteg googu jàmm ndax bu ñu sukkandikoo ci ñoom jàmm bu amul kenn du falu